li ni mel nag mbokkam yooyee daal di ci euh, bàyyi xel ci coowal drogue bu bees bi di vole ak sunus brigade stupéfiant bu Fatick gannaaw ba mu yabalee ñenn si ay ndawam yu karang jot na teg loxo ki nga xam ni mooy di FK Cissé ñu gën koo xam si suppi moom nag di suppi brigade ba teg na ko loxo ak ki nga xam ni moo di B Cissé mi nga xam ni moo ko doon euh, dawal moto boobu ex ecstasy yi nag wala volet ñu gën koo xam si drogue bi nga xam ni dafay rey nit tàkkali la sa sago moom nag suppi mu ngi ñuy xamal ni da doon dem foofee ca Gàmbi ngir jënd giley dorog pour mën koo jaay fii ci Sénégal gannaaw ba ñu ko jàppee jot na xamal waa brigade que moom nag da koy jël da koy jaay tamit te boole na ko ak yenn yeneen yi dorog di fàttali rek nag moom si axe Banjul Sénégal la doon defee li ni mel dañuy dem kër ay Ayib ginnaaw ba nga xam ni duwaan jot na fa tekk loxo ñaari pistolet ak ay garab. yu ñu doon euh, fraude mu tolloog si cent soixante et un millions ci suñu ay koppar liy wax la sa des nag waaye li ni mel nag ab kawteef la te mi ngi xewee foofee sa Soumbédioune xibaar yi nag tey mi ngi fësal ni ab gaal daal moo daal di tuuru foofee ca géejub Soumbédioune ba ñaar ñàkk si seen bakkan kenn ki rek la ñuy jot a sauvé bu météo fësalee ni semaine bi dina doon semaine boo xamante ni taw dina bëri li ni mel nag jot nañ ko nemmeeku ci diwaanu Ndakaaru ak yenn pàcc ci ci fi nga xam ni moo di réewub Sénégal ba tax na am na yenn ci ay gox-goxaan rawatina nag ci Dakar ñoo xamante ni daal ndox mi daal dina nangu seen kër indil leen ay jafe-jafe ak loraange te nag population bi ñu ngi si njàkkare ak ciis ndax lii di ndox bi amul fu mu jaar problème mu canalisation la ñu nemmeeku ci diwaanu Sénégal. ñëw ci wàll wàllub football ak attaquant sénégalais bi di Bamba Dieng ginnaaw ba mu amee ay jafe-jafe ci transfert boobu jógee ci ca fi nga xam ni moo di Nice moom nag ñi ngi mer ba futu te di joxañ baaraamu tuuma ki leen di agent wam di ko xamal ni rek jaarewul liggéeyam bu mu waroon def ci yoon ba tax na kile di Bamba Dieng jot na ñàkk li nga xam ne moo di contrat boobu mu waroon am foofee ca Nice kon nag Bamba Dieng day daal di dese ni Marseille laata ñuy xool nu muy mujjee ak ci njuuj njaac ci diggante ki nga xam ni moo di Matar Cissé ak Lamine Thiam gannaaw nag ba Matar Cissé daje demee foofee ca polisu Géejawaay ngir rek daal di amal ab plainte jëmale ko ci xaritam bi di Lamine Thiam ndax ay sàcc yu mu waraloon ci jëmale ko woon ci ay téléphone bu jàmbur ba lim bi toll ci li nga xam ni moo di seize millions naka noonu nag la ko police commencé daal di koy teg ci banc bi di ko laaj ay question mu bëgg a daw ginnaaw loolu la ko police daal di jàpp nag ñuy xam ni rek que moom mais di Matar Cissé police ko jàpp comme complice ki nga xam Lamine Thiam ñoom nag fi mu te téeméer ñi ngi ci loxo la yoon dañuy xaar rek fan la yoon di mujjee ñoom. xaar yi nag dinañ ko ndar képpee foofee ca Kédougou ginnaaw ki xam ni moo di Doura Diallo dafa ñàkk bakkanam moom ak moom nag ak liiram bu tooy xepp gannaaw bu muy am doom foofee ca maternité bu Louga ba tax na ñenn ci ñi jiite hôpital boobu rawatina ki nga xam ni moo di wuyoo si turu Ibou Faye nekkoon ab gynécologue ak directeur hôpital boobee yoon jot na leen teg loxo ngir rek indi ay leeral ci mbir mi lee mbokki internetu seen acti tv tey nag li lañ leen indi loon ci li gën a fës ci xibaar yi di leen wax ne rek woy leen di abonné te bu leen fàtte di appuyé wu ci cloche pour di am suñu ay notification di leen wax ni rek à la prochaine ci yeneen rubrique fii seen chaîne youtube seen acti tv